bu ma le président de la république taxi membre du gouvernement bi Président président fédération monsieur Augustin Senghor taxi membre football dit tamit teral Mariode at ay Aaron at Awa at famille bi fi tamit et ñi nga tamit dem guerre Séoul at euh, euh, Japon Corée di wax rek ni nima waxone rek un lion gaynde du fatou gaynde day pap mën nga reposer tranquillement veiller si li nga yi li nga fi la wax rek ni nafsin bakon bu mës a dina dem mais nous troublerons jamais duñ la mës faté merci pour tout gagner. merci